tu es une promesse un espoir nit ñi bëgg nañ léegi li ñu bëgg mooy yow léegi yaa ngi jooy nag booy ñëw loolu moo tax la responsabilité des parents de la famille reste cruciale parce que yow yow nit ñi dañ nit ñi dañ doon reetaan yow ngay jooy parce que monde bi ngay ñëw xamuloo fi yow fii xamoo fi da am ay peur am ay crainte légitime ñi nga fekk si nag ñoom ñoo war a dissiper sa peur yooyu ñoom ñoo war a tax loolu ngay ragal ndax xamoo fi ñoom ñu fexe moo tax li ñu war a njëkk a xeex mooy sa quiétude mooy ña ngay sonn ci yow ña ngay ña lay jox nga lekk sooy jooy ñoo ngi jéem a comprendre lu ngay jooy mais après nag dañoo amaat beneen responsabilité ndax ay sàmm lañu dañu war a fexe nga ci réer dañu war a fexe nga wér dañu war a fexe nga jàng bu baax dañu war a fexe nga comprendre lan ngay def si yow ci société bi fàttali la aussi ne la tu étais un espoir un espoir léegi li ñu bëgg à la de ta vie bés bu sunu borom di yónni malayka bi muy ngëpp sa ruu dañoo bëgg nag la situation bi amoon le contraire am yow danga doon jooy ñun ñuy ree léegi dañoo bëgg booy dee ñun ñuy jooy yow ngay ree ndax bu ñuy ngëpp sa ruu daje nga ak sa ngërëmal sa borom parce que tu n'as pas oublié li tax ñu indi la ci kaw suuf donc gis nga finalement c'est tout un programme c'est tout un challenge donc nit ki jamono bu nekk war naa génn ci zone de confort am loolu moo tax jëmm ji nga xamante ni tey en tout cas moom moo tax ñu daje fii muy Serigne Mouhamadou Moustapha si mësul jóg durant toute sa vie de questionner loolu sa redevabilité vis-à-vis de sa société jaral na ko lu ne nag brimé nañ ko ci lu ne daj na ko ci dugg na ci kaso lu ne daj na ko ci lu ne dégg na ko ci mais jamono bu nekk mu ne responsabilité bi ma am ci société bi dinaa ko assumer loolu moo tax lu xale yi gën a gën a judd lu xale yi gën loo gën a nekk xale xale yi am cofeel bu rëy ci moom parce que ba muy am responsabilité boobu di ko assumer mooy dane woon xale yi war a judd dans vingt ans wala trente ans dina fexe ba bu ñu gënee àdduna comprendre le sens de leur présence sur terre waaye dina leen yaral ay wayjur yoo xamante ni dina nekk un espace d'épanouissement pour seeni doom loolu mooy responsabilité mais loolu pour nga def ko il faut que nga xam nag lan ngay sacrifier dañ moom dafa sacrifié wu léegi ñun lan lañu nar a sacrifier pour suñu njaboot ñoom et c'est ça la l'essence même de la république la république mooy que ne elle est née d'une révolte contre les facilités et les injustices mais la république c'est une promesse que chaque génération vivra mieux que la précédente lii rek mooy république est-ce que la promesse elle est tenue ou pas ah imam Cheikh Sarr <laughs> je pense que <laughs> y a boire est-ce que cette promesse-là elle est tenue ou pas est-ce que depuis 1960 ñiy gane àdduna ci Sénégal ah léegi de li xew mooy sunu yaay yi dañ naan ñu jamono léegi naqari na sunu papa yi tamit dañ naan ñu jamono léegi naqari na kon la promesse n'a pas été tenue la promesse bu ñu koy tenir promesse yi bu ñu koy tenir mooy tey man maa war a gën a noppalu sama papa sama papa dafay sonn pour man ma noppalu mais man damay sonn pour sama njaboot gën a noppalu comme ça c'est comme ça que les générations doivent se doivent transmettre di